الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومهوى الظلمه وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أخي في الله إذا أردت أن تحيا قلبك فإليك هذه الوسائل أن نحيا بالقرآن الإكسار من ذكر الله قيام الليل مدرسة الصالحين وقرة عين العابدين وقرة عين العابدين التعلق بالمساجد mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ngi ñuy soññ ndax nu defar sunuy xol ndax xol mooy mbir moo xam ne su baaxee doomu aadama baax jag waaye su bonee doomu aadama daal di yàqu sunu borom subhanahu wa taala bi muy xas yahud yi ak nasaraan yi ci quran lan la leen xase yàlla dane seen xol yi dañoo wow thumma qashat qulubuhum fa hiya kal hijaara aw asadu qaswa sunu borom ne yahud ak nasaraan seen xol yi dañoo wow koŋ ba mel ne xeer wala nga ne sax seen xol yi ñoo raw xeer ak doj borom bi ba muy xas ñi nga xam ne du ñu gis yàlla ëllëg yowmal qiyaamati nga xam ne dañ leen a dugal safara loolu moo leen yiir ba gisuñu yàlla lan la wax nee na seen jëf yi ñoo yàqu seen jëf yee bon ba looloo tax seen xol yi daal di xomaat kalla barraana ala qulubihim ma kaanu yaksibuun sunu borom nee na jëf ju bon nit ki nga xam ne dafa nekk ci kaw suuf te du def lu baax nga xam ne lu bon rek lay def yu bon yooyu muy def day dem ba xomaatal xolam xol bi day xomaat yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na xol day xomaat ni weñ gu ñuul di xomaatee sahaaba yi ne ko wa ma jalaa'uha ya rasulallah yow yonent nan la ñuy def ba xol bi xomaat bi dañ mu ne qiraatul quran wa zikrul mawt jàng alquran ak fàttaliku dee kon ñii nga xam ne dañoo dugg safara tey yàlla ne duñu ma gis kalla barraana ala qulubihim ma kaanu yaksibuun kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun yàlla mu ne ñii li tax duñ ma gis yowmal xiyaam tey ñépp danañ ma gis ba mu des kuréel bii ñu ne ban kuréel mu ne ñi nga xam ne seen xol yi dañoo xomaat xol yi dañoo ñuul kon dina nekk warugar kenn ku nekk ci ñun nga xam lan mooy rey xol ba nga mooy ta ndik ku xool tey société bi ni muy dundee jëfi doomu aadama yi mbindeef yi di nga xam ne xol yi dañoo wow xol yi dañoo maral xol yi dañoo laaj am benn taw benn waame bu ñëw taw seen kaw pour xol yi mën a setaat ndax xool leen jëfi dëkk bi xool leen jëfi doomu aadama yi xool leen jëfi nit ñi mbokk yi kañ ngeen gëj a gis xaj bu góor ak bu jigéen bu taxaw ci mbedd di sëy kañ ngeen ko gëj a gis yàgg na tarab waaye léegi ñan ngeen gis ñu koy def mooy doomu aadama yi doomu aadama yi ñoo ñëw di xëccoog rabu àll yi jëf yi moo tax rabu àll yi daay daal di bàyyi nit ñi jëfu rabu àll doomu aadama ngeen gis mu sol col gu bon génne yaramam ci biti waaye gisatu leen sax sikket di dox di génne yëkkati génnam ci kaw léegi da koy wàcce ndax léegi comme doomu aadama nangu na loolu ci moom moom léegi moom rabu àll boobu rus na muy dox di génn awraam ci biti comme doomu aadama nangu na ko ci moom léegi xaj ngeen gis bu góor ak bu jigéen bu ñuy sëy dañuy dama ci àll ba dootuñu nekk ci dëkk bi léegi doomu aadama yi ñoom ñoo jël loolu doomu aadama yi ngeen gis ñu man di nekk ci mbedd yi di tamaamalu doomu aadama yi ngeen gis doomu aadama yi ngeen gis lu nekk ci lu bon doomu aadama yi ko def moo tax rabu àll yi keroog ba yàlla di xas doomu aadama yi ba melal leen ak rabu àll rabu àll yi dañoo def délégation ñëw ci borom bi ne ko yow yàlla mu ne ko labbayk wuy naa leen yéen sama jaam ñu ne ko yaa ñu bind bind nit mu ne waaw waaw ñu ne ko lan moo tax ngay xas nit di ko nuróoleeg ñun te yow bi nga bindee nit da ngaa def ci moom loo xam ne defoo ko ci ñun borom bi subhaanahu wa taala laaj leen ne leen lan laa def ci yéen te defuma ko ci nit ñu ne ko xel yow yàlla doomu aadama nga ëpp loo may xel nit moo ëpp rabu àll xel yàlla mu ne waaw waaw ñu ne ko lu tax nag nga may nit xel moomu ba pare jëfewu ko dund ko xalaatul ci xel moomu ba pare nga koy xas di ko nuraleeg ñun fekk yàlla waxoon na ci Qur'an ulaika kal an'am mu ne ñooñu di def jëfu rabu àll yi ñooñu di def jëf yu bon yooyu ba seen xol yi xomaat ñooñu de dañoo mel ni ay rab yàlla mu ne waroo doo rab yi ñu ne yow yàlla loolu waroo ñu koo wax yàlla daal di yokk ci aaya bi bal hum adal doomu aadama yooyu sax ñoo gën a bon rabu àll ndeke doomu aadama tey ci kaw suuf toll na foo xam ne moom moo gën a bon rabu àll lan ngeen gis semaine bi passé ay xale yu jigéen yu dugg ci néeg summeeku ni leen seen way jur jure di foo ci seen biir te ñoom ay jigéen lañ jël ay objet ay butéel di ko dugal ci seeni awra pare lan lañ def loolu ñu dem dugali ko ci internet loolu yëfu rabu àll la du jëfu doomu aadama waxuma la du jëfu doomu aadama waaye ab jullit loolu war naa rusa nekk jëfam lu waral loolu da ngay gis góor ak góor tey di sëy jigéen ak jigéen di sëy nga gis xale bu tuuti mag mu dem bay waaja dee sàcc ko di ko violé loo gis ci rek tey ci sa suñu société da ngay gis jëf yu ñaaw jëf yu bon lu ko waral mooy xol yu yàqu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ala inna fil jasadi mudga maa ngi leen di yëgal yéen doomu aadama yi kenn ku mu mën a doon ci yéen am na benn suuxu yàpp bu nekk ci moom wa ida salahat salaha al jasadu kullu suuxu yàpp boobu bu baaxee rek yaram bi lépp day baax waaye wa ida fasadat suux boobu su bonee mu ne fasada al jasadu kullu yaram bi day yàqu lépp ndeke kon bañ ko laajee loolu lan la war a doon yow yonent mu ne ala wa hiya al qalbu mooy xol ndeke xol mooy nit xam ngeen lu tax ñu tuddee ko al qalb li annahu yataqallab ndax dafay wëlbateeku day mel nii suba mu mel nee suba mu mel nee waaye xoolal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaata yoon lay yëkkati ay loxoom ci sunu borom subhanahu wa taala naan ko allahumma ya musabbitul qulub sabbit qalbi ala taatik yow yàlla mi wëlbati xol yi maa ngi lay ñaan nga saxal sama xol ba ma mën leen jaamu ba ma mën laa jaamu ñaata yoon ngeen di jàng ci alquran sunu borom naan rabbana la tuzi xulubana baada is hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka anta alwahab yow sunu borom ñu ngi lay ñaan ginnaaw ba nga defaree sunu xol yi nga bañ koo wëlbati kon ndeke mbokk yi waru gar na lu jaadu la ci kenn ku nekk ci ñun nga jéem a xool lii dundal xol nga taxaw ci nga jéem a xool lii rey ay xol li koy wawal li koy xomaatal li tax xol bi du jubóog borom bi subhaanahu wa taala nga jéem a moytandiku loolu xam ngeen tey toll nañ foo xam ne jëf yi doomu aadama di def ci kaw suuf xol bu wow rek moo ko mën nit tiim nit muy dund nga koy rey kooku borom xol buy dund mënu ko nit tiim nit muy dund nga gas ba mu xool di ko suul loolu borom xol buy dund mënu ko nit tiim nit muy dund nga ko sotti essence di ko taal muy takk doomu aadama yi bu ñu demee ba egg fii ñu xam ne loolu yàlla subhaanahu wa taala di wax ne bu ñu demee ba aaxiru zaman ba yowmal qiyaam di bëgg a jot danañ gis ay xol yoo xam ne ñoo gën a wow montagne te xoolal suñu borom lu mu wax nee na bu wàcce woon alquran ci montagne yi law anzalna haza alquran ala jabalin mu ne la raaytahu xaasi am mutasaddi am min xasiyatillah su ma wàcce woon alquran ci montagne yi yàlla nee na di ngeen gis montagne yi toj di ngeen gis montagne yi dotteeku di xotteeku ndax ragal yàlla subhaanahu wa taala mbokk yi suñuy laaj-laaj bi mooy alquran su ko yàlla wottee ci montagne montagne bi toj yàlla wàcce ko lu gën a tuuti ci montagne loo xam ne moo gën a tuuti ci doomu doomu aadama muy xol doomu aadama bi ko yàlla wàcc bi wàcc yàlla wàcc alquran ci moom lan la ko jural yëngatuwul lu toll ne tarfatal ayni lu ko waral mooy xol bi moo baaxul xam ngeen ne xol li koy dundal mooy jaamu yàlla subhanahu wa taala bokk na ci li dundal xol mooy alquranul karim ndax lu tax alquran waxu kan la waxu yàlla xol kan moo ko defar yàlla kon waxu yàlla ak mbindeef mu yàlla bind ñoom ñaar war nañu am jokkoo bu ñu war a jokkoo saa yoo gisee ne yow alquran mënul la dara rek xamal ne sa xol yàqu na ndax alquran démb ñi nga xam ne seen xol yi yàquwul woon suñ leen jàngalee alquran wa iza tuliyat alayhim ayatuna zaadathum imanan su leen suñ leen jàngalee alquran da ngay gis alquran bi daal leen di yokk ngëm yàlla sunu borom subhanahu wa taala nee na buñ leen jàngalee alquran wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alayhim ayat buñ leen jàngalee alquran rek nga gis xol yi daal di lemu xol yi daal di lemu ñu daal di jooy ndax ragal yàlla subhanahu wa taala lu tax parce que dañuy dégg li leen yàlla di wax parce que yàlla moo moom xol yi kon war nañu laaj suñu bopp mbokk yi lan moo tax min baru jumaa yi ilimaan yi waaraate lan moo tax daara yi sëriñ yi di waaraate écran télévision yi micro rajo yi trottoiru mbedd yi foo toll Sénégal ñu ngi jaamu yàlla ñu ngi julli te te mbir mi amul résultat war nañu laaj suñu bopp lu tax ñuy julli guddeeg bëccëg ñuy jàng alquran ñuy waaraate di waaraate ñuy wax di wax te résultat amul lu ko waral mooy xol yi ñoo yàqu dañoo laaj ibrahim bunu adham rahimahullah borom xam-xam la woon ci al iraq ñu ne ko ibrahim ñun de dañoo waaru mu ne lu leen waar gaa yi ne ko borom xam-xam yi dañuy wax te kenn du jëfe kenn du dégg mu ne lu jaadu la ñu ne ko lu tax mu ne démb borom xam-xam yi doon wax ñi ñu doon waxal dañ doon nelaw borom xam-xam yi di leen yee ñi doon wax démb dañ doon yee ñiñ doon waxal ndax ñiñ doon waxal dañ doon nelaw ñu leen di yee mu ne ku ku yeewu mën ngaa yee ku nelaw ñu ne ko tey nag mu ne borom xam-xam yi dañuy nelaw nit ñi dee ku nelaw munoo yee ku dee tey nag mu ne borom xam-xam yi dañuy nelaw nit ñi dee ndax kuy nelaw mbokk yi mën naa yee ku dee tontu bi mooy déedéet yal na ñu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalaam ala man ursila rahmatan lil alamin بصيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اخواني في الله يا اخي في الله اذا اردت ان تحيا قلبك فاليك بهذه الوسائل دوم ندي ياو سما مبوك جوليت سو بغي سا خول بي دوند سو بغي سا خول بي باña bok ci xol yi wowi jëlal jumtukaay yi nga takkoo ko jàpp ci jéem koo dund ci kàttanu borom bi subhaanahu wa taala yàlla dina la génne ci kuréel boobu nga xam ne bu ñu déggee yàlla nee na seen xol yi du fat mbooloo moomu nga xam ne bugguñu dégg yàlla nee na bugguñoo dégg yonanti nee na yàlla dina la génne ci kuréel googu nga xam ne boo leen nee yàlla nee na du leen yëngal li la ciy jàppale bu njëkk mooy taqool qur'an sunu borom subhanahu wa taala nee na yaa ayuha nnaas qad jaakum mawizatun min rabbikum wa shifaun lima fi sudur wa hudan wa rahmatan lilmuminin borom bi subhanahu wa taala nee na yaa ayuha nnaas e yéen fàttekat yi e yéen nit ñi ku woote yàlla ñan la woo fàttekat yi lu tax yàlla utiliser baatu yaa ayuha nnaas mooy e yéen fàttekat yi lu tax ndax ñun sunu baay dafa fàtte te moo ñu jur muy aadama wa laqad ahidna ila aadama min qablu fa nasiya yàlla nee na damaa waxante woon ak aadama mu fàtte comme mooy seen baay yéen fàttekat moo leen jur moo tax ngeen donn ci moom fàtte boobu lu ngeen waxanteeg yàlla rek fàtte ko saa yu ngeen siñanteeg yàlla contrat fàtte ko yaa ayuha nnaas qad jaakum dikke na leen ñëw na ci yéen mawizatun waaraate yàlla nee na jox naa leen sama wax indil naa leen waxu yàlla qad jaakum ñëw na ci yéen mawizatun ak waar min rabbikum mu bàyyeekoo ci seen boroom loo xam ne ku ci jàpp rek waaru ku ci jàpp mucc ku ci jàpp rëcc ëllëg yowmal qiyaamati loolu lan la mu ne waar gu bàyyeekoo ci seen boroom mawiza wa shifa lima fi sudur waaye waar googu aussi booleel naa leen ci loo xam ne day saafara seen xol yi ku ci jàpp rek xol bi saafaraw ku ci jàpp rek sa xol bi wér waaye wa hudan ku ci jàpp loolu jubal la waaye wa rahma ku ci jàpp loolu indil la yërmande ëllëg yowmal qiyaamati kon mbokk yi alquran a ngi nii nekk ci ñun ñeenti garab bu fekkee xol yi dañoo feebar alquran ñëw na nekk ci ñeenti garab bu ci njëkk da ci nekk waaraate ñaar mu nekk garab guy faj ñett mu nekk hudan njub ñeent mu nekk yërmande foo gis ku jàpp ci alquran ñeent yi daf koy am day waaru fu mu toll yàlla daf koy saafara waaye day jub day ànd ak yërmande yàlla subhanahu wa taala mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala nee na alquran bi bi ko yàlla di jox muhammad lan la ko wax taaha ma anzalna alayka alqurana li tashqa yow muhammad alayhi salatu wasalaam taaha dafa bokk ci turu yonent bi mu ne ko ma anzalna alayka alquran wàcce wuñ ci yow alquran li tashqa pour nga texee di abadan moo tax omar ibnul xataab keroog bu muy tuub ñëw na fekk benn waay bu tudd xabaab ibnul arata di jàngal rakkam bu jigéen bu tudd fatima ak jëkkëram mu ngi tudd saïd omar dafa gàddu jaaseem ne maa ngi tàggoo daarul daaru nadwa këru yéeféer yi mu tàggu leen ne leen maa ngi dem daarul arqam fekk fa yonent bi rey ko mu dee ñépp noppalu omar tàggoo na ci kër jullit yéeféer yi jëm ci këru jullit ñi daaru nadwa mooy këru yéeféer yi daarul arqam mooy këru jullit yi omar bi muy dem ci yoon bi mu romb benn waay bu ñu naan noaim ibnu bashir noaim ne ko omar foo jëm mu ne ko rey muhammad nit ñi noppalu mu ne ko ah dellul sa kër balaa ngay rey muhammad reyal sa waa kër mu ne ko sama kër lu fa xew mu ne ko sa rakk bu jigéen bu ñuy wax Fatima ak boroom këram Saïd tuub nañ ñu ngi ci lislaam Omar déggewul loolu jàmm dafa tourné dellu këram Omar boroom kàttan la boroom doole la suy dox ci suuf si képp ku teg sa nopp ci suuf si da ngay dégg tànk yi di def gëng-gëng di ñëw mu ngi jëm kër Saïd fekk xabaab mi ngi fa di leen jàngal alquran ñu dégg tànk yi muy ñëw Fatima ne leen ne tànk yooyu ma dégg muy ñëw ñu ne ah mu ne leen Omar la de nu ñuy def sëriñ bi leen doon jàngal daa dugg ci ron lal gi dafa tiit ba dugg ci ron lal gi Saïd ak Fatima daa di toog Omar ubbi bunt bi ne ma hadihi alhaymana alladi samituhu indakum ngunum ngunum gi ma dégg fii lan la Saïd ne ko déggoo fi dara mu dóor ko ci bopp bi mu daanu bopp ba toj Fatima ne ko bàyyi sama jëkkër mu pes ko nopp bi xotteeku deret ji sotteeku Fatima nag daal di jóg taxaw ne ko rey ñu rey ñu ñu dee xanaa yow lii nga mën mënoo indil sa jigéen ceeb mënoo koo indil dawlin mënoo koo indil dund amoo loo mën ci moom lu dul di tuur deretam lii da nga mënal sa sa sa sa sa jigéen lii nga ko mënal mooy di ko dóor loolu Omar jigéen ji wax ko xol bi tooy mu ne ko lan laa dégg fii ngeen jàng jox ma téere bi ndaw si ne ko duñ la ko jox parce que yéeféer nga da ngaa ànd ak sobe boo bëggee ñu jox la ko da ngay dugg ci toilette bi sangu ba set nga ñëw ñu jox la alquran ndax alquran laa yamassahu illa almutahharun Omar dugg ci toilette bi xëppoo ndox génn ñu daal di koy na jàbb kayit yi Omar daal di jàng aaya bi taaha ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى Omar ne giñ naa ci màggaayu yàlla lii du waxu nit rek xabaab daal di génn ci ron lal gi ne ko Omar bégal démb ci guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi doon ñaanal ñaari Omar yi njub yaakaar naa ne ñaan bi daal ci yow la dal Omar demal nga fekki yonent bi daarul arqam nga tuub Omar daa di lem téere bi daa di jubal daaru arqam ñëw fëgg bunt bi Hamza ibnu Abdul Muttalib daa di ubbi bunt bi yonent bi poñe Omar xëcc ko gësam ko ne ko Omar munoo gëm ne man mii yàlla yonent laa yàlla ma yónni Omar daa di yëkkati loxoom ndeyjoor bi ci kaw daan ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah keroog la jullit ñi man ñeen fukki jullit keroog la jullit yi mat ñeen fukki jullit keroog la jullit yi génn def ñaari sàppe sàppe bi Omar jiite sàppe bi Hamza jiite ko ñu jëm Kaaba ga naan bismillahi nuzhiru daawatana wa bismillahi nabda'u jihadana wa bismillahi nabda'u daawatana keroog la julli di génn naan ci kattanu yàlla ci turu yàlla la ñuy tàmbalee woote jëme ci lislaam ci kattanu yàlla la ñuy génnee wa bismillahi nuxriju min azulumaati ila nuur ci kattanu yàlla la ñuy génnee ci lëndëm jëm ci leer mbokk yi alquran a ngi ne doon defar xol yu baax yi démb alquran a ngi daan baaxal nit ñi lan moo tax tey ñun alquran mënuñoo baaxal lu tax tey ñuy dégg alquran guddi ak bëccëg mënuñoo baax waaye chaque jour ñuy gën a yàqu loolu li muy tekki mooy xol yi ñoo wow xol yee yàqu xol yee lëndëm xol yee fat ba amatul benn bën bën boo xam ne leeru sunu borom subhanahu wa taala mënati na ci duggati allahumma ya mugayiru lahwal gayir ahwalana ila ahsani lhaal allahumma ya musabitu lqulub sabit qulubana ala taatik اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وأزاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله